match bi moom kontaan nañ trop si gaynde yi tey wax dëgg yàlla suñu xol sedd na suñu xol sedd na trop xale yi ñoo fees ba mënuñoo wax ndax danoo bëgg bëggal nañ billaay wala bëggal nañ lool suñu xol sedd na kontaan nañ leen ñaanal rek ñu nil ñu kubbi si barke Sëñ Fallou tey moom dañoo kontaan ñun bu solo def yow 6 heures du matin sama xel dem si 2002 yee booy ils ont mouillé leur maillot booy dañoo dañoo fubal dañoo kontaan barke Sëñ Saliou bu fi yemoon sax mu neex mhm. tey wane nañ ko gën a Afrique ñaata équipe boo fa nekk tey dem coupe du monde tey ñun ñooy pays bu njëkk af qualifié Afrique tey. tey bu fi yemoon sax mu neex barki sëñ Saliou xol yëpp a bég tey ñëpp a mhm. kontaan. Mhm. man damaa kontaan. Mhm. si jour yëpp. yee. kontaan trop xam nga dañu liggéey encore di same time dañu seetaan match bi si biir trafic bi si euh, xam nga ñun ñëpp benn la. Mauritanie ak Sénégal. ndox bi moo moo ñu jaaje mais yóbbu la. Mhm. dañu content trop euh, félicitation coupe yi dafa war a dem Dakar. d' accord dañ ko war a gis foofu. merci beaucoup waaw foofu mooy place samedi. waaw am. surprise fu nekkee kenn du xam. tey mu franchement dañu content trop ndaxte lii moom xamoon nañu ni lay demee nag xamoon nañ ko waaye. xam nga rek parfois pression bi bu la jàppee daanaka <laughs> da ngay tiit mais tey moom ko gisee réew mi xam ni ñëpp kontaan nañ sénégal yi fi nekk ñëpp békk am na ci mbégte parce que euh, gis nañ euh, game bi ni mu demee Sénégal ñëw na dal na ci kaw adversaire am gagné ko ba pare loolu daal euh, neex na daal franchement am amuñ daal <laughs> luñ mën a wax lu bëree bëri waaye kontaan nañ daal kontaan nañ vraiment. yàlla waroon na ma ko ci guddi ndax caaru géej laa gis ne caaru géej la ñu kati bu vert waaw mosul maye bu ni ma ko gisee woon noonu laa ko mooy gisoon naa ko tuwaar bi daal waaw kontaan naa itam ci xam naa ne Sénégal bu gënoon qualifié loolu yàlla waroon na ma mooy li yaay moom jàmbaar lañu Aliou Cissé nag moom ca kaw ca kanam. ok tey nag dañoo kontaan parce que ñun génération 2000 bi ñu ngi doog a fekkee pour Sénégal qualifié ñu ngi doog a fekkee pour Sénégal amee joueur bu baax. Mhm. donc tey dañoo kontaan. Mhm. kontaan moo xam ne kenn mënu ko sax expliquer dañoo kontaan kontaan nañ trop mënuñu sax wax ndax kontaan. tey dañu kontaan ba eh, amuñu lenn lu ñuy critiquer instant bi moom gis nañ que ni classement bi jaar na yoon macha allah gars yi ñëpp joxe nañ bu ñu amee leneen luñ ciy wax daal comme ci attaque à bi. ñu gën ci defaraat suñu taxawaay ci match yi ñu que match yëpp final la lépp normal na bëgg kontaan nañ. man Aïda Sène la maa ngi nekk États-Unis mhm. marché bi daal neex la def. Mhm. kontaan kontaan ba xamul lu ñuy def. Mhm. damaa liggéey mu romb fii rek gis ambiance bi. macha allah kontaan nañ. d'accord ban sentiment nga am bi nga yëgee Sénégal qualifié na huitième de finale. bi ma ko yëgee kontaan rek. man daal kontaan naa yal na yàlla may ndam ñu dem ba final jël coupe du monde. d' accord loolu daal laaj na incha allah. Euh, madame Diop Amiba comme ni ko Aïda waxee kontaan rek. Mhm. kontaan rek ñëpp dañ ne woon comme Sadio Mané nekk fii dina metti du ñu mën a gagné surtout que Ecuador équipe bu mag la. Mhm. but we did it. we dañuy gëm suñu bopp rek xam ni football léegi man soo seetaanee Sénégal tey. wala même match yi passé di nga gis ni dara jombuñu ci ci football bi. we can go very very far. loolu moom gën naa gëm naa ko. d'accord ban message nga am pour Lions yi. Lions yi di leen encourager ñuy gën a gëm seen bopp te comme on dit rek ñafe ko rek ba mu jeex. nañu dem ba jeex parce que ñu ñëpp ñu ngi seen ginnaaw everywhere. waaw dañu war a xam ne itam fi ñu doon football dafa tàng jër xale yi xooluñu loolu dëkk bu tàng la xale yi doon football waaw. dem foo nag ah xale yi jàmbaar lañ 100 pour cent waaye nag ñu ngi dañuy fàttaliku a Sadio Mané ah duñ ko mos a bàyyi waaw ndax itam bu fi nekkoon tey Sénégal dina gën a am ndam waaw jërëjëf itam ah, waa journaliste yi lii mooy seen liggéey yàlla leen yàlla jàppale yàlla leen yàlla taxaw Sénégal ca kaw bi bon bi ma gisee sama xel dal na. mais à loolu bi ñu demee ba ci deuxième euh, mi-temps bi dama gis que ni ñoom Sénégal bu ñu dugalee deuxième mi bi dañuy dañuy taxaw waaw ñuy gën a defarwaat bu ñu dugalee aussi itam ñuy ensonné équipe boo ko mënee danga nga koy wan wan sa bopp quoi. message bi ma leen di wax rek mooy ñu gën a ñafe ñu ngi seen ginnaaw ñu gën a ñafe di leen ñaanal yàlla nañ jël ndam li ayca les lions. di wax ñu gën a góorgóorluwaat rek te gën a takkuwaat te xam ni mbir mi moom euh, yàlla moo yàlla mooy mooy maye waaye tamit ñu def effort ñu gis ni suñu équipe bi ñu yor nii barki Serigne Touba mën nañ jël coupe du monde wallahi parce que am nañ joueurs yi am nañ capacité bi tey xam-xam bi am na fi am nañ ay joueurs am talent yàlla xam na ko lii moom mën nañ ko mën nañ ci vingt vingt euh, équipe euh, euh, équipe bu nekk moom instant bi lii des ci game bi moom amul benn benn benn boo xamante ne dina la tiit. Idrissa Gana Gueye moom dëgg la tey bañ gisee mu am ñaari deuxième carton zone am ñu xam ne du football quart de finale bi loolu noonu. metti nañu quoi parce que jour la bi nga xam ne dafa bëgg équipe bi day dem ba jeex mais tamit bu fa jógee am na yeneen boo yi nga xamante ni tamit mooy loolu équipe bi daal kenn amu fa place bu assuré kenn amu fi place bu assuré ku dugg da naan kii moom moom poste bi kenn amu ko. waaw léegi moom maa ngi ñaan rek ñaan dong laa am parce que aw ma doole aw ma leen ñaan rek laa man leen ñaanal seen borom defal leen jàmm ñëpp wér kenn bañ a manqué quatre zones yi ñu moytu ko bu baax a baax parce que tamit lu jar a la. saa yi Gana Gueye mag si biir ñoo xam naa du joué waaw nan nan xel carton yi ndax carton yi euh, équipe bu lii rek moo la ko yóbbee nan bàyyi xel carton yi bu baax a baax jaafat ñu ngi leen di jaajëfal a baax. jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñi safoo seetaan Senego TV Senego point com gis ngeen tey reportage bu am solo bu ñu leen defal fii ci New York ci match bi doon daw diggante Sénégal ak Équateur match bi mujjee ñaari bal ci dara. gis ngeen yenn ci ay doomu Sénégal yi nga xam ne ñoo yeewoo fii ci New York la ñu am ban sentiment la am. cofeel mbégte bi ñu am ci seen i doom ya leen représenté ca Qatar 2022 mu nekkoon Seydina Alioune Ndiaye New York pour Senego TV